jërë ngeen jëf image bi tàmbali naa yëngal réew mi diggante ci dix-huit heures rek léegi ku ci nekk di ko partager boole ko ay critique ñi nag jëlee ko côté négatif ñi jëlee ko côté positif Tim Top Cas 221 indi ci ay leeral laataa may tàmbali waxtaan wi maa ngi lay ñaan bu dee gan nga ci page bi nga abonné bés cloche notification ndax mboolem vidéo bu ñu dugal nga mën see jot ci lu gaaw nii lay demee saa su nekk lépp luy cas actualité xew ci réew mi fii lañ koy traité ba mat sëg mbokk yi ñoo ko gisandoo diggante 18 heures ak léegi image bi nag moom mooy yëngal YouTube bi TikTok ba ci Instagram bi Leuz bokkoon ci série Virginie dafa àndoon nag li nga xam ne moo di copine maanaam gelam ànd ak moom defal ko benn surprise boo xamante ne daf koy demandé mariage ak akom daf koy demande mariage kan moo ko accompagne ñu ne ki nga xam ne moo di DJ Xeusa bi mu ko daal di annoncé li nga xamante ne daf ko bëgg tàkk copine bi tamit dafa d'accord comme ni ko tubaab bi di defee moom tamit noonu la ko defee am ñu koy critiquer naan ñu ngi bëgg perdre suñu valeur di roy tubaab bi wala sax dañuy roy ba dax ku ci nekk nag ni nga koy gisee moom peut-être soiwam la nañ ci ànd ak moom moom nit ci li bëgg mënoo koo fekk ci li bëgg nga bëgg koo génnee déedéet que ce nag diine nangu na ko wala nanguwu ko ñi seen xam màcc ci loolu dinañ ci àddu mais bu ñu ko critiquer dugg ci commentaire yi naan léegi sénégalais kenn xamul leen dañoo perte seen ay valeur non ku ci nekk nag ak sa bëgg-bëggam moom lii mooy bëgg-bëggam nañ ko bàyyi te ñaanal ko moom ak copinam bi suñu borom boolee leen gis nañ bëggante leen loolu mooy ji ëpp importance l'essentiel bu koy takk nañu dem si jàkk bu dee ay musulman la ñu takk ko bu dee tamit weneen religion nañ bokk nañ dem takk ko takkin boo xamante ne dina méngoo ak li nga xamante ne moom lañ bëgg ko ci nekk nag mën nga wax sa xalaat jaare la ko ci commentaire yi ndax fii mooy Tim Top Cas 221 lépp luy actualité xew ci réew mi fii nañ koy daal di traité ba mat sa jaa ngeen jëf wéy leen di abonné ak partage suñu ay vidéo jaa ngeen jëf